FADEC. Il est un digne représentant de la maison du prophète sallallahu euh, il est originaire de la Mauritanie. Son père est donc issu de cette terre bénie qu'on a l'habitude d'appeler le pays aux millions de poètes, une terre de savoir, une terre de connaissance. Et sa mère est la fille euh, du Cheikh Ibrahim Niass, qui est connu partout dans le monde. Cheikh Nerma Abdullahi, il s'investit dans la diplomatie et dans la coopération via différentes relations tissées par la Fédération de la FADEC à travers le monde avec des africaines et internationales. Euh, et c'est dans cette optique, je pense que c'était cette rencontre, parce que votre commune possède un riche héritage religieux, et il est important de conserver cet, héritage et de le vulgariser. Et la s'inscrit dans cette optique de vulgarisation et de sauvegarde de cet héritage à travers toutes ses activités. Euh, le président œuvre pour le développement et la culture, mais il est également le directeur de l'Institut moderne al pour l'enseignement coranique et les sciences islamiques. L'Institut est basé à Westfoy, dans la cité Sagesse. Les objectifs de l'association, très rapidement entre autres, sont l'enracinement et l'approfondissement de la fraternité entre les sociétés arabes et africaines, le développement d'idées de pointe au service de l'humanité, l'orientation mais aussi la réalisation d'un meilleur taux d'alphabétisation. Euh, c'est notamment dans cette optique que euh, l'Institut moderne al et la préservation de l'identité culturelle arabe dans les sociétés musulmanes. Nous vous souhaitons tous les vœux de sincère réussite dans votre mission. Monsieur le maire, nous vous remercions. Ah, monsieur le maire, ñu ngi lay nuyu bu baax di la dalal jàmm wax ne euh, réussite bi nga am ren ñi nga xam ak ñi nga xamul ñoo la jox carte poteel la ndax dañu gëm jeunesse mm-hmm. waaw te xam nañ ni jeunesse moo yore réew li fi ñëw tey nag daggit la ci Ouest Foire mm-hmm. boo xam ne dafa ñëw indi pierre am la marche de la cité et du développement sax en ensemble de de la de la de la ville et du monde entier essence su dund mooy diine mm-hmm. ak diine bu mënti ne pour pour nga am essence su dund mm-hmm. foog nga am diine te suñ ko amoon ñett rek defe naa ne waxuma la Ouest Foire mais Yoff yëpp day baax kon nag bu ñëwee pour seet si la pour man damaa ne alhamdulilah rabbil alamin am nga lu rëy parce que ñu bëri dañuy dem di ko fekki pour barke wut barke surtout yonent la sallallahu alayhi wa sallam ba pare ku nekk xam na yaa Cheikha Mariama Niass kon baax lu baax rek lay kon loolu yow tey pour man sa sa sa sa chance la ñu ñëw nag ànd ak moom ci liggéey bi muy liggéey ndax daf ñu fekk muy liggéey waaye mu indil ñu ci suñu cité loo xamante ni bu lawee ñëpp dinañ baax. Mm-hmm. dootoo gis bandi dootoo gisati kuy sànni xel mm-hmm. dootoo gis kuy def. te loolu dimbale maire la. Mm-hmm. moom li muy liggéey. ñooñu ci partenaire maire la ñu bokk. ndax maire ñoom ñoo yore cité. waaw xam nga tey kooku moo la seet si ñun tamit ñu ànd ak moom di ko jàppale. ñun nag ñu ñëw seet si la ñun tamit pour wax la ne rek ñu ngi ànd ak shérif mi ci ay projet yi muy doxal. te projet yooyu bu sottee yëpp yow sa manoore lay doon incha allah ndaxte fii la ko defe te yaa fi ci yoof nii kon nag yàlla nga dal jàmm salaamaaleykum monsieur le maire ñëw première chose di la ndokkeel lu sax moom tax ñu gën a ñëw di la wax ne Chérif ak soxnaam ci ginnaawam di la ndokkeel bu baax a comme li ñëpp wax rek loolu laa ciy delluwaat ndax Chérif dafa am lu ñu defal ñun waa Ouest Foire ñun dëkk mais yàlla dafa def ci na nga def man rek dañu doon dañu doon sekk bonjour monsieur bonjour moo fa di nga dëkk nit mu takkaloo sax doo xam ko kër mais gannaaw yàlla ak yonent bi ak Chérif mii tax na tey Ouest Foire ñëpp ñu ngi demal diggante yi jël njaboot gi bu vacances jotee xale yi dañ daan nekk ci mbedd bi di football ñoo ubbi daara ñëw xale xale yëpp bu vacance jotee nekk ci biir daara bi di ko ñaanal encore une fois ni mu ñu boole tey bu ñun ñëpp ñu nekk benn tey jii ñu fi mu nekk ñëpp ci membre fa nekk bu ñu ñëwoon duñ ci xaj. Chérif dafa ne nañu tànn quelques personnes ñu ñëw ñu nekk benn. 2015 la fa ñëw ci Ouest Foire ñun mosuñu conférence mosuñu xam luy conférence mosuñu xam luy waxtaanu diine. di ñu jël naan ñu ñëw leen ngeen di toog di jàng. kon loolu amuñu fay kon waaye ñun ñu ngi sant yàlla ndax lii suñu chance la ñun ñu ngi koy sant yow tamit di la félicité di ñaan yàlla yan bi yàlla na woyof euh, du ma wax lu bëri ci li li comme ni jigéen ñi waxee parce que ñoom wax na lépp rafet lu ma ci jéem xam nañ wax nañu li ñu wax yëpp dëgg man Chérif ma wax ci moom parce que moom ñu ko xamee woon ñi nga xamante woon màkk lañ xamante waaye depuis bi ñu boobu ba léegi ñi ngi jàppalante suma doom mi ngi jàng foofu doom nee ñi ngi jàng foofu donc ñi ngi bi bi mu ma dafa bëgg gis maire ma ne ko xam naa xamante bu baax waaye mi ngi liggéey sama rakk te xam naa ne soo bëggee mu ñëw soo bëgg boo bëggee ñu dem parce ñëw na sama kër donc bi muy sant ñi ko ndox ñi ko fal ñëw jàll ba sama kër donc gis naa woyafam xale bu responsable donc xale bu responsable rek mën a ànd ak ay mag te li wax dañuy def première visite bi ñëw seet si la après ñu ñaanal la xiif ñaanal la yàlla dooleel la te xamal ne ñu ñu ñu ngi si ñu ngi si ginnaaw te comme yéen euh, autorité bu nekk fii ci ci Ouest Foire ñu yëgal la ONG bi existé na dans le domaine te bien que ci ci waa kër Baye Niass surtout Baye Niass surtout yow Sall Sall diine bi yëpp la fi nekk diine bi yëpp la la julli yëpp moom man man mii julli sax ñu ngi ci ñu ngi ci parce que lépp loo xam dimbalante ñëpp xëj nañ ci. donc ñu ngi lay yàlla woyofal gis naa seen programme aussi ngeen def ci da di diisoo population. loolu mooy bokk na ci seen programme donc tamit diisoo boobu la ñu ubbi nii. pour ñu xam ne euh, may na ubbi nañ suñu buntu dina wax ne saa yu ngeen ñu soxlaa mu sommes disponibles dans cette dans le cadre de cet échange avec les populations pour l'intérêt de l'homme ci seen bopp moom lañu wax ñoom ñoo baax moo tax ñu wax lu wax man seen wax yëpp damay wax ci amin la ñu a ñëw fii mooy pour mu ndokkee la ak ñaanal la ak ñu wax la na ñu ngi ànd ak yow ci liggéey bi nga bëgg yëpp ci Ouest Foire te nit ñi suñ dajee ba wax ne diw nii la yàlla dafay ànd ak moom ne nga nii la te loolu la wastufaar yëpp ak yoof ak kon wax kon ñu ngi ànd ak ak def te ci am ci yaakaar bu baax dëgg man duma politique mais tamit lépp luy yëkkat lu yëkkat ci baaxal nit ñi loolu ku ku dox ci mais boo nga wax na politique wala politique mën na lu mu nekk sama xol sama lamin mënu wax ndax euh, sama wolof sotut te des mais wax leen macha lépp lu war a wax ci loolu ci rek mooy na euh, ma lu ñu wax na su waxee na su bëggee mu ñëw ndax sa oyofaay joxee na loolu ndax xëy na gis nañ ne ay ambassadeur ministère yi kilifa yu ñëw wax naa leen kii mooy suñ kilifa ñun ci gox bi te ñu dem ba ci moom ndokkale ko ba pare ñaanal ko te moom tamit jeune la te yenn saa sama dafa am lu mu day continuer mu ne xayru fi shabab wa charru kulluhu fi shabab lu baax yëpp ci jeunesse bi nag lu bon tamit ci jeunesse bi kon bu ñu gisee yenn bu baax buy eh, bugg a réewam bugg defar réewam ah, ci lépp séedal ci moom yëpp loolu lay wax ñun dañuy sol suñu daal ñëw financé ko ñaanal ko wan ko dana ñëw nuyu la mu ne may de man may ñëw ci daara ji ma bàyyi ko mu ñëw mais yow wax naa ne man may dem ci yow ak lu nga waxee ñoom ñëpp heure boo buggee ñëwal sufaar ma xamal ma incha allah ñun tamit heure bu ñu amee activité bu ñu war a kii incha allah yow lañ njëkk a jege te seen teewaay tamit eh, danañ ko xaar ci loolu eh, na te eh, yàlla na yàlla dëgër la te yàlla tànn ay nit yu baax ñu seen xol baax seen ñu ànd ak ci liggéey bi te gëm naa ne te ñii ci loolu lay bokk ñu ngi sa gannaaw comme ni mu la waxee di la ñaanal yàlla yàlla barkeel amiin directeur agence bi amiin alhamdulilah macha leen nuyu nuyu gën di tedd ci nuyoo yi bu la yàlla boole ak nit ñu tedd boo leen dalal it leen nuyu bu tedd ak suñu xol nag lañ ko tibbee macha allah di nuyu sang bu tedd bi ñu ngi lay ziare di nuyu gisee mi nga àndal daan na yàlla rakkam ko am taxawaay rek suñu mbir di la nuyu it bu tedd bi di nuyu sama yaay yi fi nekk di leen présenté sama yaay yi fi nekk. di troisième adjoint au maire vraiment mu tax taxawaayu yaay mën naa ko sax njëkk a tudd avant première adjointe bi parce que ñun ñëpp ko nangul cërëm ñun ñëpp. leen koy dénkee bu baax di leen dénkee ci suñu première action suñu mel di sant suñu borom subhanahu wa taala ndax yàlla moo fi nekk démb lañ tàmbali liggéey bi démb laa commencé xëy fii tey ñu dalal surtout yonente bi alayhi salaatu dalal fii surtout euh, maam Cheikh Ibrahima Niass Seyda Mariama Niass lépp jógee Seyda Mar Seyda Mariama rek macha allah lépp jógee ci moom rek. Ah, boo la doon dalalee sant parce que ay dundam dafa jox sant suñu borom di am yaakaar nag ci lu ñu dëgg mën que lu ñuy xëcc xëccu mbiru àdduna lu dul diine lu dul suñu borom subhanahu wa taala ay digle bu tedd lu dul loolu ñu donc di am ak xel mu dal ci li boo nee bismillahi rahmaani rahim ah. ay sang ñëw seet si la te ñun ñoo waroon jóg seeti la sant suñu borom la ñuy def waaw alhamdulilahi rabbil alamin sang bi fii sa kër la fii cër bu ñu fi mën a am it yéen yéen a ko moom ñun amuñ ci benn cër dañ leen di xëyal fii rek di leen saytul di leen déglul askan wi di leen xoolal di leen jubbantil waaye li ci am solo rek mooy ñun duñ ci leen lépp yéen askan bi parce que mbir bu ñu la ko joxee mu leer ne donnoo ko ci sa wéjur donnoo ko ci sa maam mais ay carte la te kart mbiru suñu borom la baax na na ci déggoo ak nit ñi jox leen si seen cër ba mu mat ngay déggoo ak ñoom di diisoo ak ñoom pour li gën ci dëkk bi ñu mën ko doxal nga xam ne gis nañ ci seen bopp damay faral di wax ne li fi ne ci mairie bi bu ñu ko miraasoo tey di ko séddale waaye Yoff ku nekk ñetti junni doo ko am lan la lay jëriñ dara ñu ko dajalee pour ñu yor ko la ci ak njub yor ci dëkk yor ci péncoo ñu xool li ngeen bëgg li mën a nekk li ci gën ñu àndandoo ak yéen def ko di leen sant bu baax sama yaay si yéen laay tëjee ci shérif ndax yaay ji yàgg naa dem turam je pense sëñ Saliou Camara yàgg na ma ko wax mais tey la yàlla dogal ne dinañu jàkkaarloo maa ngi dugg ci saal bi pour man xale yi ngeen gunge mais kanam yi ñu ma dalal rek dafa sedd suma xol te maa ngi leen di ñaanal yàlla fay leen te di leen wax ne seen doom a ngi fi seen i jigéen it seen xarit ñu ngi fi ne li ngeen ne incha allah doo leen ci wet ndax bés boo leen noppee rek confiance bi am suñu diggante ak yéen yaakaar bi am suñu diggante ak yenn ñu salfaañe ko ba mu dey ñun ci ñun lay metti ndax boobaa li nga taxaw war a jokkalante askan bi doo am loo leen wax te ngor da ngay moytu gàcce gàcce nag pour bañ ko moytu tàllalal suñu borom say loxo wéerul ci moom ànd ak ak ay nitam nga mën a ànd ak ñoom maase ak ñoom wala sax gën leen a suufee ñu mën la jàppale nga am ndam maa ngi leen tàllal loxo te dina dalal seen xel ne loo leen ne équipe bi ñu àndal dinañ ci ne incha allah parce que xam nañu ne jubóole pour seen bopp man dégg naa seen i mbir yàlla seede na ko mais nag li may wax rek lu ne lu jot. ak kañ nekk suñu borom di dogal tey la ko yàlla dogal sang bi nag li ko war la def mu ngi jihaadal lislaam maamam dafa jihaadal lislaam lu ne dal ko ci alayhi salaatu wasalaam mu muñ ko taxaw téye pour lan defar doomu aadama jamono ji li ci ëpp solo mooy fexe nu ñuy defari nit te nit boo koy defar ci li ma jàpp ci xam-xam alxuraan nga ko mën a defare ndax ëllëg mu mën a jariñ société Chérif yàlla na la yàlla fay dafa ne ci li ne muy taxaw nit te taxawu na leen soxna na ko li am solo ci àdduna muy mujj bu rafet te yàlla na ñu ko borom bi defal yàlla na borom bi may ñu ay mujj yu méngoog lislaam mooy li ci ëpp solo ndax ëllëg bu ñu demee ñu mën a bànneexu ci xéewalu àjjana yi sanga bi dégg naa sa porte parole li mu wax ñun dañ si gis suñu bopp ndax li nga wax yépp dafa taxaw pour jàppale li nga xamante ne mooy commune bi mu réussir ku am xel nag da ngay wéeru ci moom ndax boo bëggee xeeñ lu neex te amoo parfum da ngay jege comme parfum bu neex fu mu romb rek yóbbaale te fii ñun mënuñu lépp yàlla rek a man lépp te li muy def buñ ko boolee as tuut ci commune bi man boole ko ak li soxna mbenn man ak li suma yaay ji man ñu dajale ko jàppande ñu ne yàlla mën nañu defal sutura ci li nga xamante ne dénk ñu ko li ñu dénk anam bi mu demee moo yëm ñu bari mais benn mag dafa ne maam ah, Cheikh Ahmad Bamba Mbàkke dafa borom bi lu mu dugal loxam rek mu saf ñëpp te ñii ñu mandal nañ ko seet campagne bi yëpp yàlla lañu wéeru ci lépp wallahi azim bu ma wagul dëgg ñu ngi fi ci lépp yàlla rek moo tax ba ñuy jàll it na ko yàlla defee ak anam ba dañ ci sant yàlla mais incha allah maa ngi engagé man ak ñi ma àndal ñëpp ànd ak yow taxaw li nga xamante ne mooy sa liggéey si lislaam ak ci luy suqali doomu aadama doomu aadama boo ko suqalee mu mënal boppam politicien du ko ñi ma àndal ma ànd ak nit doxale alal sama diggante ak moom yëg-yëg bii wallahi azim moom gën a nekk macha allah